Ousmane Sonko mi ngi wéy nag di élargir parte bile di ko massifier comme ni ñu koy waxee ci wàllum politique moom Ousmane Sonko nag jamono ci kenn mënu ko téye dafa daal di jël avion jël roppalaanam décollé ngir daal di dugg nag fépp fuy parti fii ci biir réewum Sénégal jël seeni militant daal di koy ñëw yokk ci ay yosam massifier parti boobee loole lépp nag ci waajal nag élection yi nga xamante ni moom la ñu daal di jëm ci atum 2024 moom Ousmane Sonko njiital Pastef ci semaine bi ñu génn sax déggoon nañu ne am na ñenn ñoo xam ne siin nañ ko ca fële nga xamante ni moom mooy ca kër Bougane Gueye Dany ga ca cité kër góor gi loolee nak daal di wundu na rek ñoom ñaan ñi nag naam amoon nañ ay jafe-jafe saay su ne nag ca ay bés yële nga xamante ni moom la ñu daal di génn ngir daal di nag wax ci li nga xamante ni moom mooy nag wàllum seeti gi ñuy seeti yenn saa yi nit ñi ci seen i jafe-jafe rawatina nag ci mbënn mi moom mi nga ci ni muy Ousmane Sonko ak Bougane Gueye Dany mu mel ni daal niwul wax nag ci benn langage déggoowuñu woon torop ci nañuy doxalee waaye nag loolu ceewul nag weer képp lañ ci des ñu daal di gis ne rek moom mi Ousmane Sonko nag seet nañ ko muy def ay va-et-vient fële nag ca kër Bougane Gueye Dany ngir déema xool nees mën a def nag ba daal di nag bokk ñoom ñaar ci ab coalition loole nag du suñuy kàddu waaye nag ni ñu gisee mbir yi ni mu demee la ñuy daal di njort ne rek loole lañu daal di bëgg ndax ñoom ñi sax ñoo bokk bëgg-bëgg ñoom ñi ñëpp benn objectif commun lañu am mooy daal di daaneel nguurub Macky Sall waaye nag mu Ousmane Sonko yemu ci Bougane Gueye Dany képp ndax tamit gis nañu ki nga xamante ni moom mooy nag xalifa Sall itam bokk ci ñi nga xam ne ñu ngay consulter jamono ji ngir daal di dajaloo ñoom ñi sax gisoon nañ ne ci ab manifestation Géejawaay bi ñu fa daal di jógeekoo nag gis nañu ki nga xamante ni moom mooy Khalifa Sall nag jamono ji moom itam ma ngay seeti euh, Sonko euh, même bu fekkente ne jëlu tànkam dem waaye ma ngay yónni yenn ci ay émissaire maanaam ay ndawam daal lay yebal fa li nga xam ne moom mooy ca siège ba Pastef ngir nag Ousmane Sonko ci ay waxtaan yoo xamante ni mën naa mujj ci ab coalition boo xamante ni euh, fii ci duwaanu dakaar nag lay daal di njëkkee coalition bu mag a mag a mag fii ci Dakar nag lay doonee yaay waaye nag danañ ko daal di nag lawal ba fi nga xamante ni mooy gox-goxaat yi ci biir réewum Sénégal lu ci mel ni Ziguinchor ba fële nga xamante ni mooy ca Saint-Louis sax nemmeeku nañ fa am na fa ñetti base yoo xamante ni euh, Sonko lay doon ak ki nga xam ne mooy Khalifa Sall loolee lépp nag ngir massifier parti boobule te itam nag mu nekk parti boo xamante ni lu nar a ragal lu la euh, ci élection yi nga xamante ni moom lañ daan dëgmal euh, ci vingt 2024 ñoom ñi ñëpp nag di ay kàngam rawatina yenn ci ay cadre yu APR yoo xamante ni maire président Macky Sall ca Euh, na mu dugalee yenn ñi ci opposition bi ci biir mouvance présidentielle bi mere gañu ko ca mere nag moo tax mu daal di accepté de ànd ki nga xamante ni euh, moom mooy nag Ousmane Sonko waaye Ousmane Sonko nag euh, ñun tam bu ñu ko jàngatee mooy ne rek war naa def ndànk ndax moom ci communication saa su ne la muy xamle mooy ne rek mooy doon candidat bu Sénégal anti système maanaam moom système bi defaru ko dafa bees tàq te itam partem bokk ci caatu parti ci réewum Sénégal moom itam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 DKR 221